mais c'est un peu compliqué quoi avec la pandémie. Donc, euh, en tant que supporter de en tant que doomu Pékin, nous avons jugé nécessaire d'apporter notre contribution. Apporter notre contribution si ban moyen la ñu war a mën a jaaree parce que mënuñu di déplacer wu di ñëw di joxe suñu xaalis donc nous avons jugé nécessaire à travers la plateforme Copper Express ñu tijji fa benn organiser fa benn collecte boo xamante ne collecte bi day di par quinzaine koy def. bu ñu ko defee donc euh, dañuy permettre chaque région ñu regrouper li nga xamante ne moom lañ moom la billetterie bi doon apporter pour alléger le tas le président euh, ñu def la tout ba regrouper ko foofu noonu à travers ay cotisation yi ñuy def par rapport ak euh, xaalis bi ñu doon jël di ko daggee billet ñu dugal ko foofu noonu de ce fait chaque quinzaine dañ koy regrouper heure bu équipe bi war a recevoir fii nii ñu jël ko dajale ko. dañu fixé baat 2 millions 500 parce que billetterie bi da doon dugal ëpp loolu sax da doon dugal ëpp loolu ñun ñoo ko limité foofu noonu rek comme comme première et un exemple boo xamante ne AS moo ko joxe AS Pikine bëgg na à travers lii nii ñu créé yeneen yeneen yeneen équipe yi aussi tamit mun di mun si jàppandiku mu leen di alléger bi ko voilà. une œuvre humaine n'est jamais parfaite une œuvre humaine n'est jamais parfaite plateforme bi ñu koy door a créé bon euh, carte visa yi da doon dox ak mais da à moment dafa dem ba dafa am Euh, je me suis rendu compte ce matin ah, am na ko dugal am na ko dugalee via via via noonu donc ñun woowoon nañ leen signaler leen ko xamal leen hmm? waa par Express ñoom ñoo ñoom ñoo ko gérer quoi ñun collecte bi lañ tëj organiser ko foofu rek mais euh, woo nañ leen defal def nañ def nañ suggestion bi pour permettre leen ñoom ñu mën a veiller si li nga xam ne loolu mais euh, ce na ku jaaree par par par qui veut dire que ne ñoom ñu nga am ay amélioration par rapport ak ça quoi mais en terme de sécurité plateforme bu am sécurité parce que même ki nga xamante ne nekkul administrateur plateforme bi sax bu duggee dina xam ne cotisation bi lii la diw moo cotisé lii diw joxe na lii somme bi fii la toll objectif bi lii lii moo des pour ñu atteindre ko kon donc loolu noonu loo xamante ne lu transparent la lu lu visible la par rapport ak tout tout le monde parce que en terme de collecte d'argent moom c'est un peu compliqué quoi bu lu lu leerul su bëtu nit ñi rek duñ ko kii kon donc ñuy lancer un appel euh, au di leen wax ne euh, Euh, képp kuy doomu dëkk bi wala képp koo xamante ne mës nga yeewoo Pikine nga ñëw jàpp si lii nga xamante ne dañ ko initier mu nekk benn exemple boo xamante ne dañ koy de pour tous les autres clubs comme ni ñu ko waxee rek parrainage bi Pikine moo ko initier woon mu am réussite Euh, plateforme bi aussi tamit ñun ñoo ko initié bëgg nañ mu am réussite bi nga xamante ne dafay wees suñu jot parce que euh, du dañ buñ buñ nee jàppale Pikine bu ñuy jàppale Pikine aussi tamit dañuy jàppale le foot local aussi tamit quoi à travers euh, apport financier bi ma la wax rek moom ñun dañ jéem a fexe ba tout ba mettre leen dans de très bonnes conditions parce que nit ki boo koy laaj résultat au moins war nga ko mettre si conditions yi nga xamante ne conditions yu idoine lay doon yoo xamante ne du du am benn benn benn jafe-jafe donc kooku koo mettre si condition yooyu mun nga ko mun mu andi résultat bu positif mais tant loolu matewul munoo insister pour kenn def leen ñu leen di souhaiter une bonne chance si match bi nga xam ne si lañ jëm di woo di lancer appel à tous les Pikinois ñu boole xol yi ñaanal équipe bi ba li nga xam lépp loo xamante ne sumb nañ ko ñu daanandoo de la pandémie de la subvention de la mairie de, la ville de Pikine nous permettra de, de, à nos dépenses quotidiennes. aux charges salariales et tout. C'est vrai que c'est très difficile avec tous les clubs du Sénégal, mais surtout avec la Speaker qui, l'année dernière, en 7 matchs à domicile, a pu récolter plus de 18 millions de, recettes. Mais on va essayer de parler avec euh, le maire de la ville pour qu'il puisse le, la subvention. Ça nous permettra d'avoir des ressources qui nous permettront de, de subvenir aux dépenses quotidiennes, aux charges salariales et tout, quoi. Inch'Allah. Non, l'AS Pékin a écrit à toutes les entreprises qui sont de la banlieue. Mais nous savons tous ici au Sénégal que le c'est relationnel. C'est relationnel, on a écrit à tout, on, a, on, aller voir au directeur d'entreprise de la ville de Pékin, mais malheureusement, bon, c'est relationnel comme je l'ai dit tantôt c'est relationnel quoi. la la pre la première mesure consiste euh, à, euh, à aux supporters de pouvoir participer à leur euh, aux dépenses quotidiennes de l'équipe, de subvenir aux, charges salariales. Et on a mis en, en place une plateforme dénommée Copar Express qui permettra à tous les supporters de participer d'ici et d'ailleurs c'est ça nous permettra en tout cas d'avoir des ressources additionnelles qu'on puisse aider aux, aux, aux dirigeants c'est en collaboration avec le comité directeur. C'est Lamine qui gère ça. On est en discussion pour voir si c'est possible ou pas. Mais ça, on a des discussions avancées, avec le promoteur. est-ce que mën na ko ci wolof ñetti ci euh, euh, li ngeen jël pour subventionner. comme ni ñu ko waxee ah, comme dañoo nekk ci ci période pandémie nekk ci huis clos métti na ci gib yëpp mais rawatina tamit ci AS Pikine ndax daaw boo seetloo ci sept match yi nga xam ne joué nañ ko à domicile récolté nañ si dix plus de dix-huit millions de recettes. kon dëgg la métti na ci équipe yëpp mais rawatina ci AS Pikine bi nga xam ni chaque koy def euh, guichet ci loolu nag la supporters yi mettre en place benn plateforme bu ñu tuddee Kopar Express di permettre supporters yëpp mën a participer seen équipe dëgg la duñ mën a ñëw jënd billet pour dugg seen stade yi mais dina leen permettre ñoom ñu participer ci fu nu fu nu munti nekk muy Sénégal muy extérieur te loo xam ne loolu transparent la boo ci duggee di nga ni gis diw participer na ci lii la ci participer moo tax ñu woo supporter yëpp ñu mën a ñëw parce que beneen appel bi peut être mooy chaque match dañ fexe teg fi ñaari bloc ticket yu cent ticket muy deux cent ticket ñu jaay ko à mille francs deux mille ça dépend lépp lu ñu si récolté rek ñu mën koo reverser ci équipe bi pour que ñu mën si di gérer seen ay transport seen ay prix mu jour ak yooyu tamit quoi a jàppale club am naam yàgg na koo jàppale mais daf cee rawati ci période bii ñu nekk muy période pandémie nga xam ni match yi si à huis clos mu métti si ñëpp nag mais rawatina tamit ci AS ma nga xam ni daaw si set match yi nga xam ni moom lañ joué à domicile am nañ ci dix uit million plus de dix huit millions de recettes kon dëgg mat na te jàpp ma ni am na yeneen club yoo xam ne mën nañ lii AS Pikine mën ndax ñu suñu match yëpp xam nañu guichet c'est à guichet fermé mu métti trop léegi nag ñu ne woon nag ñun war nañ saytu yan moyen la ñu war a fexe ba ñun ñu mën a jàppale équipe bi ci période bu difficile bi ci loolu nag lañ mis mettre en place benn plateforme bu tudd Kopar Express boo xam ne képp kuy Pikinois foo mun munti nekk di nga ci mën a dugg nga participer si pour joxe sa sa participation ci ci équipe bi mu nekk benn plateforme boo xam ne bu transparent ndax boo mën nga cee dugg gis ni participer nga si ki ci participé rek dañ ko xam te li mu si joxe tam si somme dañ ko xam dañoo bëgg chaque quinzaine ñu jàppee ko noonu ba keroog ñuy tujjuwaat beneen appel bi tamit bi ñuy lancé mooy ñu lancé ko le président de la république lancé ko le ministre des sports mooy ñu permettre peut-être mu am cent cinq cent supporters ci ci ci stade yi ndax bu ñu amee cinq cent supporters ça nous permettra nag loolu foo jëlee équipe bi mën si di dépendre ndax fii Sénégal xam nañu équipe bi dafa xaw a métti amoo sponsor ci amul rentrée d'argent ci béykat ndax wi ko la ñuy def kon subvention rek ngay ngay ngay ngay yaakaar muy métti trop léegi nag loolu nag bu ñu ko permettre da permettre tamit ñu jël suñuy disposition jël suñuy mesures barrières yooyu yëpp respecté ko ba ñëpp ba feebar bi lépp lu ñu ciy séntu ci ñun mu bañ a jógee ci ci ci football bi. te loolu ñu koy ñaan président di ko ñaan le ministère des sports pour permettre. Euh, stade yi peut-être même bu nekkee 500 personnes sax ñu def ko tout en respectant les mesures barrières. waaw ku ne AS Pikine ne ambition yu ñëw joué première division ambition lay ñëwee euh, pour jouer les premiers rôles lan mooy ambition AS Pikine ren moom képp comme ni nga ko waxee rek ñun moom duñu équipe boo xam ne day joué les second rôle ndax suñu tolluwaay moom moo demee noonu AS Pikine équipe bu mag la ci ville bu mag la nekk. à chaque fois supporter yu exigeant la ñor dañuy bëgg tout le temps ñuy am ay trophée ren bëgg nañu au moins ñu jël benn championnat wala benn coupe du Sénégal bu nekkee mën na nekk pour que supporters yi tamit gën a mën a gis seen bopp ci ci bi te loolu mooy ambition équipe bi loolooy ambition supporters yi te lépp lu ci war ko ci liggéey ba loolu ñu atteindre ambition yooyu incha allah. Euh, na am waaw non am na ay recrutement yu ñu def. am ñu ay recrutement def am na ay joueurs yu ñu ndax boo gisee daaw duñ bàyyi si joueur ëpp na 15 joueurs li ñu recruter tamit ëpp na mat na 17 joueurs te loolu day wane ni ambition yi ñu am ci équipe te nekkul n'importe quel joueur la ay joueurs yu mag lañ jël championnat bi te jàpp nañ ni noonu li leen si liñ ci séntu jàpp nañ dañ ko ci am ci kàttan yàlla